bismillahi saan rajim bismillahi rahmaani rahim barke borom Touba jërëjëf Cheikhul Khadim Touba ci kanam mooy ñëw tey jii fas yéene waxtaane gestion des fonds bu mois de août di ci ànd ak ma Mafary njaay moom mi nga xamee ni dinañu leeral lépp loo xam ne dugg na ci compte Touba ca kanam ak fan la jaar ci compte Touba ca kanam bay si Touba ca kanam kon sëñ fëri ñoo ngi lay dégg Touba dugal na ci kees Touba ca kanam 57 millions 942 mille 780 francs bu dee Mbàkke Mbàkke dugal na 725000 Tiib Tiib dugal nañ 195000. Wave plateforme bu Touba ci kanam dugal na 11 millions 15 mille 685 bu dee Wave numéro Touba ci kanam bi muy 78 544 33 33 dugal na 5 millions. Euh, Orange Money plateforme bi euh, dugal na 2 millions 200 mille 703 francs CFA. bu dee dakaar dakaar dugal nañ ci kees Touba ci kanam 5 millions 459 mille 800 euh, Rufisque Guy Mouride dugal nañ 10 000 francs Bambey dugal nañ 75 mille Diourbel dugal nañ 1 million 392 mille Thiès dugal nañ 1 million 18 mille Daayira Babul Ayaadi bi nekk ci Añaam dugal nañ 132 mille Joal dugal nañ 412 mille Kaolack dugal nañ 1 million 753 mille Kolda dugal nañ 274 mille Kébémer dugal nañ 1 million 28 mille 500 Tamba dugal 750 mille Kédougou dugal nañ 615 mille Louga dugal nañ 2 millions 240 mille 425 euh, Mbour dugal nañ 2 millions 455 mille Fouta Bokkilaaji dugal nañ 163 mille département de Dagana dugal nañ 500 mille Moudéri dugal nañ 50 mille bakkan lamaan dugal nañ cinquante mille croisement jaarumbe dugal nañ quatre-vingt-deux mille Goudiri dugal nañ quatre cent quatre vingt mille Kujaan dugal nañ quatorze mille Gasaan dugal nañ quarante mille Njaa dugal nañ cinquante mille Fuuta Orko Jeere dugal nañ cinquante mille Daaru Musti dugal nañ cinquante mille Vélingara dugal nañ cent cinquante-huit mille cinq cent Touba Belel dugal nañ cent mille Tiwaawoon dugal nañ deux cent soixante-quinze mille Ourossogui yi dugal nañ quatre-vingt-six mille Taïf dugal nañ vingt mille Daaru Salaam Diouf dugal nañ six cent mille euh, am na versement yuy dugg ci compte banque yi euh, te duñ xam fu mu jóge versement anonyme la tudd mu ngi toll ci un million huit cent trente mille quatre cent vingt-quatre bu ko defee loolu mooy li dugg ci Sénégal mooy zone nationale bi toll na ci quatre-vingt-dix-neuf millions trois cent sept mille huit cent dix-sept francs bu ko defee ci jaayante yi am na ñu ci jot a dugal ay jaayante yoo xamante ni du versement bloc yi loolu mu ngi toll ci 3 millions 474 mille 620 francs machines yi nga xamante ni Touba ci kanam am na ko ci ay jumtukaayam am na yu ñu ci luye woon mu toll ci 529 mille 800. bu ko defee ñu ñëw ci zone Amérique Amérique Brésil dugal nañ 175 mille Argentine dugal 1 million 215 mille Canada dugal nañ 563 mille 700. États-Unis d'Amérique dugal nañ 6 millions 450 mille bu ko defee total zone Amérique bi lu jóge Amérique yëpp mi ngi toll ci 8 millions 403 mille 700 ñu ñëw ci zone Europe zone Europe euh, Italie dugal nañ 6 millions 608 mille 627 francs France dugal nañ 1 million 898 mille 920 francs Espagne dugal 474 mille 305 francs total bi jógee zone Europe mi ngi tollu ci huit millions neuf cent quatre-vingt-un mille huit cent euh, ñu ñëw ci zone Afrique euh, Côte d'Ivoire moo si jiitu dugal na un million soixante-quinze mille neuf cent. Mauritanie dugal nañ million millions seize mille Gabon dugal trois cent soixante dix mille cinq cent Guinée-Bissau dugal un million deux cent bu ko defee totalu zone Afrique mi ngi toll ci cinq millions six cent mille quatre cent. boolee li jugee ci Sénégal mooy versement yi nga xamante ni am na ci réew mi ak zone Amérique zone Europe zone Afrique totalu versement Touba ci kanam li ñu encaissé ci mois d'août day toll ci cent vingt six millions trois cent soixante sept mille cent quatre vingt neuf francs. ginnaaw bu ñu leen leeralee li fi dugg ci mois d'août bi yëpp euh, ci weeru juin Canada dugaloon nañ six millions deux cent quatre vingt dix boo xamante ni ab jaayante la woon jërë ngeen jëf. ginnaaw loolu ñu ngi teewlu Serigne Khadim Diouf. ànd ak moom ci gestion des fonds bi ci wàll wi nga xamee ni moo jëm ci dépense yi mooy li nga xam ne moo génn ci compte Touba ci kanam yi jëm ci liggéey ñuy def moo xam chantier la moo xam lu mën ti doon bu pare ci loolu tamit dinañu leeral lan moo des ci compte yi ba ñëpp xam fan la Touba kanam toll kon sëñ Xaadim bisimilah. kon ñu ñëw ak yéen ci décaissement yi nga xam ne mooy li génn ci compte Touba ci kanam ci weeru août ñu njëkkee ko ci sous commission membre euh, décaissé na lu toll ci 157000 mu jëm ci jumtukaay yoo xam ne fi muy denc ay bloc de reçu la chantier université bi dépensé nañ ci million cent 11 millions 786 mille 676 francs mu jëmoon ci ay liggéeyu finition yu ñu fa doon amal. poste de santé bu ndaam ku ne xam na ne mi ngi ci finition. foofu yi tamit ci weeru août def nañ fa lu toll ci. 4 millions 523 mille 461. loolu nag mi ngi jëmoon ci ay carreaux ak ay peintures buñ fa doon def niki noonu it poste de santé bu Touba Ndiarème euh, dépensé nañ fa lu toll ci 1 million 797 mille cent moom it carrelage la peinture ak euh, lu jëm ci wàllu ay matériel plomberie. Touba Fall muy mur muy muy mur de clôture boo xam ne ñu ngi koy amal ci ay pàcc yu ñu fa am. def nañ fa lu toll ci 2 millions 840 mille opération defar yoon yi euh, ci weeru août bi dépensé nañ ci 28 millions 576 mille 180 francs loolu nag li ko waral mooy am na conduite bu ñu war bu ñu war a defar deuxième conduite boo xam ne war nañ ko def mu jëm ci station Shell bi ak liggéey yu jëmoon ci puits d'infiltration yi booru sexaw ga ñu doon ko eggali ak euh, liggéey yi nga xam ne yëpp mi ngi laal lu jëm ci defar yoon yi ci weeru août bi dépensé nañ ci 28 millions 576 mille 180 francs euh, opération màggal it waajtaayu màggal gi dépensé nañ ci 9 millions 704 mille francs ci euh, yoon wi jëm ndaamaatu te ñu ko ci weeru août bi moom it ci weeru août bi dépensé nañ ci lu toll ci 25 millions 453 mille 970 francs commission communication euh, dépensé nañ lu toll ci 1 million 917 mille francs commission scientifique mu jëm ci daara yi euh, dépensé nañ lu toll ci 5 millions 784 mille francs logistique commission logistique jumtukaay yi ñuy yittewoo ci carburant euh, ak réparation oto yeeg yooyu dépensé nañ ci lu toll ci 10 millions 195 mille 5 francs opération wàllu ñoom it ñoo doon xeex inondation yi euh, dépensé nañ ci weeru août cent million deux mille francs base 3S mooy fa nga xam ne amal nañ fa euh, machine pavage boo xam ne Touba ca kanam euh, jënd na teg ko fa liggéey nañ fa lu toll ci 11 millions 467 mille 500 francs mu jëm ci wàllu machine pavage boobu nga xam ne mbaar muñ ko doon defal ak ay charpente ak carrelage loolu yëpp toll ci 11 millions 467 mille 500 francs commission santé ñoom it ci weeru août Euh, dépensé nañ lu toll ci 8 millions 547 mille francs loolu nag euh, di ay matériels yoo xam ne frais de dédouanement yu ñu fay matériel yu jóge woon bitim réew ngir euh, jàppale waa Kër Docteur ci wàllu gu yaram commission santé dépensé na ci 8 millions 547 mille francs budget de fonctionnement bi ñuy génnee muy muy toll ci un million génne nañ ci ñaari yoon 1 million muy 2 millions de francs yoo xam ne dépensé dañ ko ci frais yu jemp yi nga xam ne léeg-léeg du mën a xaar commission massification euh, ñoom ci yaatal gi ñuy def ak waajal màggal gi dépensé nañ ci lu toll ci 5 millions 282 mille francs salaire ak charge fixe yi nga xam ne dinañ faral di génn weeru ci ne ci weeru ut bi dépensé nañ ci lu tolloog 12 millions 510 mille francs commission administrative euh, ñoom it ci weeru ut dépensé nañ lu toll ci 959 mille francs sous commission reboisement euh, bokk ci environnement dépensé nañ lu toll ci 10 millions 361 mille ci weeru août bi commission organisation ñoom it dépensé nañ 1 million ci weeru août su commission leeral euh, dépensé nañ lu tolloog 102 millions 582 mille 900 loolu nag li ko waral dafa am lu tolloog 5000 lampadaires yoo xam ne jënd nañ ko ba pare mu ngi ci yoon wi di ñëw waaye egg loolu dépensé nañ ci lu tolloog 102 millions 582 mille 900 commission sociale ci màggal ji Touba ca kanam euh, jàppale na ko lu tolloog 20 millions de francs ci ngir waajtaayu màggal ji frais bancaires yi faral di am 17 euh, 498 euh, dépensé nañ ko ci ay frais yu jëm ci banque yi kon bu ñu xoolee ci weeru août bi li nga xam ne dépensé nañ ko yépp mu génn ci compte Touba ci kanam mu ngi toll ci 279 millions 383 mille 690 francs

deux cent quarante six mille cent quatre vingt cinq francs cinq cent soixante seize millions deux cent quarante six mille cent quatre vingt cinq francs li ñu dépensé ci weeru août bi bu ñu ko génnee ci soldu juillet li fi desoon montant global bi des ci weeru août bi ci compte Touba Ca Kanam day toll ci quatre cent vingt trois millions deux cent vingt neuf mille six cent quatre vingt quatre francs quatre cent vingt trois millions deux cent vingt neuf mille six cent quatre vingt quatre francs alhamdulilah kon ñoo ngi sant mbokki taalibe yépp kenn ku ne dégg na bilan gestion de financier bi ni mu demee kon loolu nag ñu ngi ci sant mbokki taalibe yépp waaye kenn ku ne xam na nag la Touba ca kanam doon xëcc ak la mu bëggoon ba mën a am li mu doon yóotu parweer loolu kenn ku ne bu déggee gestion des fonds bi dina xam ne xaw naa des waaye nag ñu gën a soññaat euh, suñ bopp di soññaat suñ mbokki taalibe yi te xam ne kenn ku ne lu mu jàppoon lu ko gën a jàpp ku dend ak nit na ko gën a fëgg te xam ni liggéey bi moom liggéeyal Sëñ Touba la waaye liggéeyal sa bopp la ndax li ñuy def yëpp ci dëkk bi rek la jëm bu ngeen gisee chantier yi ngeen gis ci Touba ci kanam moo xam tali yi la moo xam lamp yi la moo xam poste de santé yi la moo xam daara yi la loolu lépp mi ngi jóge ci ñaar téeméeri kon ay wa murit nañ leen taxaw ci ñaar téeméeri ndax mooy tax Touba jëm ca kanam jërë ngeen def wa kullu man qaddamani aw saara wa najini wa xullu damay daal di tàmbali tàmbalil joxeel sa ndey joxeel saa baay joxeel saay mbokk mu ñaari junni yi ay ca murit liggéey bu mu suuf